da ngeen dugg ci histoire du Sénégal te yëgoo leen ko yéen waa département Mbacké da ngeen dugg ci histoire Sénégal te yëgoo ko laaj leen ma nan ngeen duggee ci histoire laaj leen ma nan ngeen duggee ci histoire góor gu ñuy wax président Ousmane Sonko bi mu yëkkatee projet yéen yéen ci joxe seen bakkan pour projet bi taxaw. ñaata doomi département Mbacké ñoo dem kaso ngir projet bii ñaata doomi département Mbacké ñoo ñoo dugg ngir lii depuis 1960 bu la waar Ndoyeen bii ñu taxaw benn leader politique ñu ngi def meeting dégg naa kii que ce ku ñam la def kon yéen waa le 24 mars au moins sikki sàkka na di ngeen fal président Bassirou Diomaye Faye au moins sikki sàkka premier tour premier tour premier tour premier tour mu des teg mu des teg Diallo suba suba Diallo waxkat yi waxkat yi waxkat yi ak dëmm yi Diallo dinañ day wax dëgg yàlla doom mooy nekk rajo yi xam nga lan mooy nekk seen argument mooy nekk seen argument mooy président Bassirou du murit est-ce que yéen ñi taxaw fii gëm ngeen sëñ Tuubaa man Cheikh ak président Bassirou Diomaye Faye. kon loolu sëñ Fall kon yéen ñi taxaw fii yëpp kan moo leen gën a gëm Serigne Touba ay murit lañ ba bokk Pastef ñun ay murit lañ bokk Pastef kon président Bassirou Diomaye Faye bi muy ñëw Mbacké yéeneen numéro un mooy siyaare na xalif général de murit moo tax mu woo ma téléphone lijjanti ma bu ma ñëwee ma siyaare ji ko kon yàlla dogal Cheikh Mahamadou Mountakha Fatou moo tax dem fa kon yi bu subaa boole ni bind boole leen ci yéen waa Mbacke est-ce que pare ngeen pour fal président Bassirou Diomaye Faye yéen waa Mbacke est-ce que pare ngeen pour fal président Bassirou Diomaye Faye mu des nag mu des nag fulla ji ngeen xamee woon démb ak barki démb mooy suuru vote yi ku nar a foqal suñuy résultat dañ ko jaay suñu bakkan Amadou Ba sàcc la ku ànd ak moom sàcc la Amadou Ba sàcc la ku ànd ak moom sàcc la wala mbëggee changement fànn kaw kon lan borom na di ko wax ne liggéey naa 15 ans et boo demee musuma fekk président Ousmane Sonko président Ousmane li muy baax baax baax tànn ku baax la man président Ousmane Sonko li muy baax baax tànn ku baax la man moo tax mu tànnal ñu borom na koy seet góor yu baax yee ànd ak moom kon yéen waa Mbacke bu leen des ginnaaw ci projet bi képp ku ci mën sa morom di nga ko raw ba faw kon yéen waa Mbacke raw ngeen ba faw te rendre hommage jàmbaar yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun depuis campagne bi démarré ba léegi ndax seize communes yi nekk ci département Mbacke coalition Diomaye wër nañ ko ci huit jours huit jours kon fii ku taxaw ne coalition Diomaye dina fi tëkkoo kenn waxul dëgg fii bu ñu amul deux cent mille voix échec nañu. bu doonul deux cent mille voix fii ci Mbacké échec nañu. si nga pare ngeen pour jox président Bassirou Diomaye Faye deux cent mille voix. vive le premier tour. vive le premier tour. vive le premier tour. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. merci. honorable député. gars yi ñu bàyyi xel rek micro bi. ndax président ci lay def temps d'antenne merci bi ñuy lim leader yi fi teew teg ci boole soxna Maimouna Bousso mu di jàmbaar fàqu tëdd ci waar wi dañuy jox kàddu gi toujours les responsables du département le coordonnateur Ahmad Lo ñu jox ko micro bi mu saafoonteeg président ak sa caravane sëñu Seynou am na beneen leader wala yeneen leader yoo xam ni war nañ leen lim muy sëñ Basiiru Mbàkke moom tamit mi ngi fii di bois Touba bokk ci conférence des leaders le maire Samba Ndiaye mi ngi fii bokk ci leaders yi wante tamit ya la présidente Léna Sène moom tamit bokk na ci ah, ak la présidente nan nga gisee mobilisation bi am rek ah, teg contentement rek ndax li seen Cheikh wax léegi rek ndax département bu Mbacké dañoo am yéen ci procès bi tey dañ cee def taxawaay bu am solo ndax euh, Ousmane Sonko ñi fi nekk dañ ko bëgg te yàlla tax parce que dafa indi dëgg dëgg gi mu indi ci ànd ci ak moom kon lii lii duñu bett ndax li tax mooy Mbacké ay bañkat lañ tey maanaam dañoo bëgg dëgg kon bu Ousmane Sonko indi dëgg dañuy ànd ak moom te it xel dal na ci lii fi nekk nañu ne dañuy gagné à quatre pour cent fii ci département bi parce bu dee liggéey liggéey nañ ko bu dee tamit am ko nit ñi ci relation ak am nañ ko te tey booy xool seize communes yëpp ñun kese ñoo ko du nekk lu ñu bett la coalition Diomaye président depuis lors mën naa ne ñu ngi battre le record moment bi nii dégguma mais la coalition Diomaye président depuis lors ñoo nekk di battre le record waaw xam nga bii day ñëw confirmé wu parce que xam nga li tax nit ñi seen jéem ñoo ñoo bëgg changement nit ñi seen bopp ñoo bëgg tamit jële fi système bi fi nekk parce que système bi fi nekk dañoo yàq réew mi ci anam yëpp tey tey ji xale yi bëgg nañu liggéey xale yi bëgg nañoo jàppale seen waajur yi parce que tey boo xoolee maanaam euh, jigéen ñi ñoo gën a nekk sax métuwaayu dëkk bi ndax tey koo jox dépense junni sa soxna dina jëlaat junni daal ci dolliwaat ndax lan marché bi lépp a seer bu dee ceeb bi seer na bu dee li ciy dem lépp a seer kon tey li ñu war a def mooy fal koo ne dina liggéeyal réew mi ba nga xamante ne lépp loo xam ne li mu nekk ci wàllu dund ñu mën koo wàññi parce que mën nañu ko am nañ or am nañ jamaa am nañ circo am kon tey ji am nañ tamit pétrole kon tey li ñu des rek mooy njiit lu set njiit lu jub ñu ànd daaji liggéey pour changement ànd ngir liggéey pour Sénégal am ndam Afrique am ndam te Ousmane Sonko yéene mooy Afrique du sax Sénégal mais Afrique la kon ñu ngi ñaan président Ousmane Sonko sunu borom jàppale ko. son borom dooleel ko suñu borom kattanal ko ba a ji mu am ak bëgg-bëgg bi mu am ci Bassirou Diomaye Faye mi di suñu candidat suñu may premier tour ñu ànd liggéey réew liggéey Sénégal Sénégal am ndam ñëpp am ndam. ñenn ñi di wax la politique est une question d' expérience Bassirou Diomaye Faye amul expérience démb ko gisee Walfadjri nan la jàngat bi. waaw xam nga maa tey dafa am loo xamante ne. tey man boo digloo Bassirou Diomaye mu wax mu wax ci xam-xamam mu wax tamit ci loxoom yu set parce que tey jii bu ñu fàttali li ñu yor procès la te procès ku ci nekk rek mën nga ko doxal mais tey dafa nekk maanaam li wër Ousmane Sonko ñi nga xamante ne dañ ko wër ñoom ay jàmbaar lañ tey ñu am xam-xam lañ seen loxo set na kon daal loolu amul solo li am solo rek mooy li ñu ko dénk mu doxal ko te am nañ ci moom yaakaar am nañ ci moom yéene yàlla ko yàlla jàppale. dégg nga dégg nga dégg nee na Rebeuss am na ñoo xam te ni jafe-jafe ñoo ko jëfandikoo fi di tuux wala ñu def lu mel bëgg ñu jàpp leen ndax ñu am jàmm mu mel ni étudiant en tout dëkk bi. xam nga jaar na ci kaso. jaar na ci kaso xam na kaso duñu na kaso kon tey lépp lu mu wax rek lu mu rek xam na ko kon ñun li ñu ko gën a mooy ki nga xamante ne nitu àll la ba nga xamante ne am na expérience dundu àll kon tey ñun suñu jëm bopp dinañ xam dinañ xam ne buñ ko joxee dina mën a sensé lu bëree bëree bëri ci réew mi ndax kaso boo fa jaaree ba xam ne ko fa nekk bu ñu la falee di nga ko mën a defaat ba nga xamante a wàññeeku à cent te am na ci moom yaakaar nag mu di kenn ñi jàpp ne nguur kenn lu joxe Ousmane Sonko dafa jekkal mbiru Bassirou Diomaye Faye. déet xam nga xam nga tey jii mooy li ma la wax léegi li ñu man gëm naa man mii rek su ma ma doxal parce que ñi wër bu ñu amee maanaam xel seet lépp loo xamante ne lu mu laajee ci nga liggéey jubal di ko def kon Bassirou daal yàlla suñu borom lafal cat suñu ne yéen a ji mu am ngir liggéeyal ko Sénégal suñu borom may ko lu kawe njortam te am nañ ci yaakaar bu baax a baax parce que jàmbaar la mooy votel seen bopp dimbali seen bopp suñu papa suñu na votel la mooy dimbali président loolu am sas la fii ci Mbàkke ndaw ñu bëri nañ mooy département bépp nit ci Sénégal loolu nag ab sas la ndaw ñuy toog ñu am jom lañ liggéey rek lañ bëgg ñu ngi jàng góor góor góorgóorlu suñ Tuubaa ci liggéey ak jàmm yàlla la leen yar monsieur le président moo tax ñii dañoo soxla ak jàppale département de Mbacké nag dafa am potentiel c'est c'est la deuxième économie du Sénégal commerçant yi nekk fii monsieur le président ñu soxla ak jàppale la ce programme da wax lu solo mooy les pôles de développement Mbacké a le potentiel pour devenir la principale zone industrielle du Sénégal te ndaw ñi nekk fii ñoo ko war a liggéey suñ commerçant yi nekk fii am nañ njariñ ñu bëgg liggéey lañ di ñoo soxlaa njàppale monsieur le président fa seen xel yëpp eggul fa seen doole yeggul fa seen i pexe yeggul sa gouvernement saytaan dafa egg ñu dimbali leen ndax am nañ yéene ji bëgg nañoo liggéey.